asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey nag dañ leen a indi loon benn liggéey bu jëm ci wàllum concours bindab alxuraan ñu ko doon amal fee ci Touba Daaru Marnaan kër Serigne Touba Mbacke gi nekk ci côté garage bi Serigne Seck 316 organisé li nga xam ne moom mooy bis boobu ca Touba Daaru Marnaan duñ def du dul bàyyi ñenn ñi nga xam ne ñoo fekk woon jotaay bi ñu leeral ñu incha allah. salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Mahmadane Dieng maay président commission communication bu comité yaatal mbindum alxuraan bu C3S di organisé. voilà xanaa fàttali rek ci njël benn kàddu yi ne lii ñuy amal nii euh, continuité la bu édition bi nga xam ne mooy bu 2020 bi mooy continuer ba léegi ndax li ngeen ko xamee euh, ci passé bi. danoo tolloon ci mbas mi foo xam ne état bu Sénégal dafa jëloon dogal euh, tere lépp loo xam ne mbirum yëngutu la moo waraloon nag C3S ci comité bi nga xam ne moom na lal pour euh, taxawal ci concours bi nu dakkaloon bépp activité bu jëm ci concours bi toog lu ëpp juróom-ñetti weer euh, dakkaloon loolu léegi nag mu mel ne tey reprendre reprendre dooraat nañ liggéey bi ngeen gis ne kon ñu ngi ci li ñuy tuddee phase présélection candidat yi nekk ci biir salle bi di di def phase boobu waaw concours bi dañ ko ubbi xam naa waa scientifique danañ si ñëwaat dañ koo ubbil bépp sénégalais boo xam ne rek critères yi nga xam ne waa scientifique lal nañ ko ginnaaw boo ko liiree ba pare gis ne itam man nga see mën a bokk dañ la daal di ubbil nga nga mën cee bokk moo xam foo mën a bokk ci biir Sénégal da ngay daal di bind lu toll ci benn xët bu 13 lignes ànd ak sa tur ak sa sant déposé ko ci point de dépôt yi nga xam ne moom lañ tegoon ngir ko bëgg a bokk si concours bi. ren bi ñu defee appel à la candidature am nañ lu toll ci 1674 candidats yoo xam ne euh, ci ñoom lu toll ci fanweer yi ak euh, ak ñaar ak walla ak ñett ay jigéen lan ay soxna lan li si des lépp nekkoon ay góor kon loolu lan mooy li nga xam ne moom lañ amoon ren ci bi ñu defee appel à candidature ba pare. Euh, waaw bu fekkee phase bu ren bu tey bii nga xam ne moom la ñuy amal tudde ko phase demi-finale wala phase test xam naa waa scientifique danañ si ñëwaat waaye rek wax ne phase la boo xam ne dañ koy dañ koy teg ngir gën a mën a saytu li nga xam ne moom lan ñi nga xam ne moom lan tànnoon tollu tolloon si 40 ginnaaw 674 yooyu ñu woowaat leen tey pour xam ba xam est-ce que dëgg-dëgg ñooy ñi nga xam ne ñoo bindoon bind yooyu ginnaw bi itam danañ corriger 40 yooyu tànnaat yi yeneen yoo xam ne ñooy jàll final bu soobee yàlla final bi ñu ngi ko war a def le le 13 janvier incha allah ca Dakar. bu tey waaw bu tey bi moom c'est c'est un concours national yoo xam ne euh, nit ñi fépp la ñuy bàyyeekoo ci biir Sénégal déposé ba defee waa scientifique tànn ñi nga xam ne mooy 40 yi tànn si première phase bi. war see tànnaat yeneen 20 yoo xam ne ñooy jàll final incha allah final bi ñu ngi ko war a def comme ni ko waxee le 13 janvier incha allah 13 janvier bu ñu si jógee itam danañ tànnaat ñett ñi nga xam ne ñooy jiitu ci ci ñooñu. war leen a jox ay neexal ci cérémonie bi ñu war a amal le 17 avril ca ca ca Dakar itam incha allah. buñ buñ jógee ci ci final bi ñooñu nga xam ne ñoom leen war a tànn jox leen ay neexal toll si ñett ka ca jiitu dana am 6 millions ki ci topp dana am million millions 500 ñetteel ba itam ci ñoom dana am 5 million bu soobee yàlla. je me nomme Mahmoud Andien, je suis le président du comité de euh, commission communication de la, euh, du comité Yatal Minam Al Quran, initié par euh, la C3S. Alors là aussi, je dois rappeler que c'est toujours euh, l'édition 2020 qui suit toujours son cours. Comme vous le savez, donc, euh, compte de la situation de la COVID, dans le passé surtout, l'État du Sénégal avait pris des décisions interdisant donc toute, toute activité ou bien même tout rassemblement allant dans le sens donc de rassembler des personnes au sein du, du pays. C'est dans ce sens que la C3S avait su nécessaire d'arrêter toutes les activités du, du dit concours et on a resté plus de huit mois pour euh, reprendre aujourd'hui les activités. Et comme vous le savez, comme vous le voyez, les candidats sont présentement dans la salle en de faire euh, Euh, le concours et nous en sommes à la phase demi-finale. Euh, voilà, un, un, long processus. Comme vous le savez, ça commence toujours par l'appel à la candidature. Et pour ça également, toute personne qui, après avoir lu les critères de sélection ou bien même les critères de participation, se sentant donc disposé à participer, euh, devrait écrire une passe de 13 lignes contenant ces, ces, ces filiations, prénoms et noms, et déposées dans les points de dépôt préétablis par la C3S. Pour l'édition 2020, on a un nombre de candidats égal à 574 candidats, euh, dont, dont, 33 femmes, hein, et le reste ce sont des, des hommes. Et, et à l'issue même de, de l'appel à la candidature, la commission scientifique euh, a procédé à ce que l'on appelle le dépouillement, qui s'est passé le 5 passé, le 5 euh, novembre passé. Et à l'issue du dépouillement, on a retenu 40 personnes. Et ce sont ces 40 personnes qui se sont présentées ici, ici même, aujourd'hui à Touba, pour passer la phase demi-finale. Quelle la de cette Là aussi, je pense que la commission scientifique va revenir là-dessus. mais on peut, on peut dire que c'est une, phase à laquelle euh, on va vérifier. La commission va s'assurer que la, la copie qui a été retenue était bel et bien l'œuvre de la personne qui a été soignée. Tout à fait, c'est national. Voilà, à l'issue à, à l'issue de cette phase demi-finale, on va retenir encore je dois préciser qu'on va retenir encore 20 personnes. Et ce sont ces 20 personnes qui seront présentées euh, à la finale prévue le 13 janvier prochain, Inch'Allah, à Dakar. À l'issue de cette finale, on va retenir encore, on va retenir encore euh, trois lauréats qui seront primés, euh, le premier aura une enveloppe de, de 6 millions le deuxième une enveloppe de 5 millions 700 et le troisième une enveloppe de 5 millions. Inch'Allah. waaw solo bi yaatal mbindum alxuraan am solo yu baree baree bari la bokk na ca mooy euh, li tax objectif bi li ko waral mooy mbind moog alxuraan ñoo ànd mook jàng euh, suñ borom bañ na ko ba euh, giñ ci aw xaraf ci xarafi alxuraan yi loolu moo tax sax ñuy jël li ñuy wax shiar shiaru concours bi tudde ko nuun wal qalami wa ma yasturun kon lool li mu ñuy andil mooy ndekete jàng ak bind ñoo ànd kon loolu manqué gum manqué ak des ginnaaw gum tàmbali wan des ginnaaw moo waral concours bi kon léegi gis nañ ne njariñ li mi ngi tàmbali feeñ ndax nit ñaa ngi gën a yittewoo bind ci daara yi xale yaa ngi participer ci taux yu xaw a yëkkatiku ak mbind mi itam qualité bi di gën a yokk loolu mi ngi wane ne kon euh, alxuraan mi ngi dellu si ci wàll googu nga xam ne mooy njariñu mbind bi benn bi ci des euh, critère de sélection yi Euh, képp koo xam ne nii dafa bëgg a bokk euh, ci bind mi comme niñ ko waxe woon ci njàlbeen mboolem euh, Sénégal yëpp dañuy def appel à la candidature képp ku bëgg a bokk da ngay bind yónnee ci adresse biñ la jox boo yónnee ñu xool ko def dépouillement def nañ ko ba passé nañ ko su boobaa dañuy xool ñi ci jël am nañ quarante personnes yoo xam ne ñoom ñoo ñëw tey pour def demi-finale bi ñooñ ñooy bind tey jii bind nañ ba eggal léegi ñooñu nag ci seen biir la ñuy doog a tànnaat ñi war a dem ci finale. waaw tur wi boo ko déggee rek euh, concours yaatal mbindum alxuraan yaatal lu fi nekkoon la waaye dafa xat ndax dem nañ ba gis ne daara yi ñu bëree bëri dañuy mokkal alxuraan man ko tari waaye faatixa sax boo leen ko binduloo duñ ko mën a bind loolu nag ci gis-gisu directeur C3S muy Serigne ci la gisee ne lii nan leen taxawaay lañ ci war a def ba gën koo mën a taxawu tuddeewuñ ko delloo si ndax kon day mel ni nekku fi waaye yaatal lañ ko tuddee ndax dem na ba diggante yu xat ci réew mi ñoo ko yore ñu bëgg ko yaatal ba mu daj Sénégal kon yaatal googu moo tax ñu tudde ko noonu te mi ngi yaatu waaw façon mbind yi ñuy def mooy mooy mbind yi nga xam ne mooy mbindu cosaan mbind yi nga xam ne ndax bind dafa am ay xeet bu dee euh, waa Turquie am nañ bind bu dee waa Kuufa am nañ bind bu dee waa feneen am na bind waaye Sénégal am na mbind muñ ko xame woon ca mag ña ba léegi ci lañ doon bindee kaamil di ci bind mboole maxtuutaat yi li fi nekk yëpp ci la nekk foofu nag lañ delluwaat pour bind ci mbind ci façon bind boobu nga xam ne dañ naan lii mooy mbindum Sénégal suñ ci bindee kaamil tey ba génne ko ci àddina bi fu mu dem dañuy xam ne mbind mi mooy yax bi waa Sénégal moom ndax mbind mi alxuraan moom benn la waaye ku nekk nag mën nga am sa yax te ñun am nañ suñu bos boobu nag moom la ñuy promouvoir waaw sujet yi ñuy tànn euh, scientifique bi dañuy dañuy toog waxtaan euh, xool ndax euh, xale bu nekk ci ñi doon bind tey jii kenn ku ci nekk dañ lay bindloo fukki liiñ ak ñeent fukki ligne ak ñeent yooyu ñu ngi koy jëlee ci mushaful madina mooy kamilu Arabie Saoudite boobu nga xam ne boo ci tànnee di euh, quatorze lii ñëpp a koy tollale ku ci nekk maanaam liñ lay bindloo doo xam fu mu tàmbalee ak fu yam lu dul biñ la joxee bi nga ñëwee kayit bi yaa koy jëlal sa bopp léegi li nga war a bind bopp bi fi mu tàmbalee ba fi mu yam def nañ ko ci lem nañ ko boo ñëwee boo ko jëlee rek da ngay xam ne yow lii nga jël moom nga war a bind ñi lay saytu tam dañuy taxaw xool xam ne liñ la bindloo moom nga bind boo bindee ba noppi lépp ay numéro la waaye ñun ñëpp xamuñu xamuñu ku nekk lu mu bind ñoom itam kenn xamul lu sa morom bind duñ du ñu laalante kenn du waxtaan kenn du dimbalante léegi buñ noppee nag ci la ñuy xam ne lu waay man rek ñu xam ne lii nga man waaw euh, commission bi lool lool ñàkk amul ñàkk amul ndax fiñ tàmbalee ba fiñ toll kenn ku ci nekk Euh, am na lu la concours bi C3S am na fu muy jaar ak yow ak nu muy def ak yow waaye li fës dëgg-dëgg rek mooy ñii ñoom ñoo jiitu jiitu bi nag bokkut ak gagné nga doon nga doon xeex gagné wala danga doon bëre daan mais da jiitu ndax bi ñuy xool kan moo jiitu dañuy sonn lool pour xam ku jiitu kon li ñu rawantee bëriwut manante bi bëriwut su ko defee ñooñu feeñ nag ñoom la ñuy wane li ñu am ak liñ leen jox. waaye ñeneen ñi ca des ku ci nekk am na lu ma am loo xam ne ànd ak nag expérience am ak xam-xam ak li ci aju waaw moo tax kenn kenn pertul man <laughs> euh, la imam Khadim Ndiaye la si commission scientifique waaw. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, Serigne Samba Mbacké commission scientifique hmm, secrétariat may wax ak yéen euh, xam naa li Serigne Khadim doon leeral tuuti rek. ci li ñuy ñëw pour am ñu ci gën a leer pour nit ñi xam concours bi naka lay demee concours la boo xam ne li day laaj nga mokkal alxuraanu karim lépp day laaj xam-xam bi ñuy wooyee rasmu muy alxuraanu karim ni ñu ko bindee woon bi fi Seydina Ousmane nekkee nga man ko ak la ci aju day laaj itam nga man li ñuy wooyee mbindum Sénégal ñett condition yooyu dañ ko ciy sant bu paree nag maanaam mbind rafet mais nag euh, fi ñu ñëw mooy euh, question yi ñu xam ne concours bi mënul am benn tappale kenn mënu ci jàppale kenn du ñiy def surveillance bi du élèves ci seen biir du candidat yi parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy surveiller foo yi ñu yor kenn ku nekk am na numéro boo ci nekk boo xam ne nii kiy surveiller masalan saa yu ñëwee di ma xool ma numéro un lay gis man numéro en laa yor saa yu ma amee erreur buñ may jox beneen fooy numéro un lañ ciy def su paree ba ñëw ci secrétariat dañuy dagg numéro en bi ki doon surveiller surveiller numéro un bi mu doon gis dañ koy dindi suñu gisee am na benn code bu code boo xam ne code chiffre ak lettre lañ boole moom la ñuy dagg def ko ci nga xamante ne bii loolu man mi fi nekk foofu rek man maay xam loolu ñi nga xam ne ñooy ñëw war a corriger fooy yi ñeneen la ñuy nekk ñooñu buñ ñëwee ay ay chiffre ak code rek la ñu duñ xam kii kum doon. faaw liggéey bi day mel ne teg ci yoon corrigé itam dañ koy fooy bu ne dañ koy corrigé au moyen ñaari commission ku ne day corrigé ba pare joxaat sa morom double lay nekk suñ paree na ni ko Serigne Khadim waxee Mahamadan waxee ko ni ñu door tànn nag vingt yi xam ne ñoo jiitu ci ñooñu ñooñu ñooy dem final quinze yi góor la ñuy nekk cinq nekk ay jigéen loolu li ma ci doon gën a dolli waaye xam ne daal liggéey bi série série boo xam ne ni mokkal lay nekk bu wér enveloppe bi dañ koy préparé boo ñëwee loo ubbi loo fekk loolu ngay bind aussi ni ñu koy contrôler itam li ngay bind mënu bind lu may loolu am na foo xam ne boo bindoon leneen boo ñëwee ñun danañ xam ne li ñu la laajoon ak li nga bind bokk parce que ay lay nit ki dana jël benn question dem toog xam ne jafe ne mu bind leneen mais su ko defee bu ñëwee danañ ko mën a xam ñu xam ne concours bi itam fu waay mën a nekk préparé ko laaj na mokkal bu wér laaj na rasmu nga man ko bu wér laaj na baptu nga mën ko bu wér aussi laaj na itam mbindum Sénégal nga mën aussi mu rafet su boole yooyu yëpp nag ñi fi daje ñëpp nag ñoom ay miir la yoo xamante ne bi tànn ci ay vin day jafe parce que ñu ñu am qualité yu kawe lañ yore vraiment xam naa ñiy ko si xaw ma ñu mu mais danañ sonn pour séparer leen asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ko maa ngi tudd sekk Fallou Seck eh, di jot li santuk Serigne Seck ci liggéey bi ci ñu ko seq muy ñi ñu woowu ñu wuy si di candidat yi ñoo leen sant bu baax a baax. seenu góorgóorlu di sant euh, commission yi leen yore di leen toppatoo ñoom itam ñu ngeen sant ci li ñuy liggéey ñu weesu ni mu doxee woon lii noonu la doxee lépp tegu ci aw yoon euh, at mu jot rek ñu am ci ndam loo xam si mooy weesu muy ëpp mi bi ñu weesu kon nag loolu ñoo ni jot seenu cant gu jógu ci sëriñ ñëw ci ñi doon liggéey ak ñi doon contrôle ñuy liggéey muy góor ñi ak jigéen ñi bowuñ benn commission ci turu sëriñ ñoo ngi sant yéen yéen eh, ñi fi toog itam yor média itam ñoo ngi sant ci turu sëriñ di jot jotli ak cantam bu jóge ci ñu ñëw ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, ñu sant yàlla bu baax nag di sant ki nga xam ne moo euh, def jëf ju mel nii euh, muy El Hadj Serigne Seck c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 mooy alxuraan ku ko mokkal da ko war a mën a bind kon ma yemale sama kàddu foofu